waa لئن صدقت tabaarakallaahu waxtu bi def ñu dab dañuy jox imaam Jibril Diène di xalifa El Ahmed Lamine Diène mu dalal sëriñ bi di Maam Malick bu xaaj Mansour borom daare yi rahimahullah buñ ca jógee ñu jox El Hadji Cissé jinge bi ñu xam moom mi fi teewal Cheikh Ahmed Tijani Al Maktoum di xalifa fa tabarakallahu ñu ñëw nag ci daayira yeeg leneen la ca topp bismillah imaam mbokk yi papa jibril jéen ne ginnaaw bi musloo ci seytaane mu ngi sant yàlla bu baax di julli di salmal ci seydina muhammad sallallahu alayhi wa maa mu ngi muslu ci seytaane. ne mu ngi ñaan ci barke subhanahu wa taala. bi nga xam ne ku jub moo la jubal. te moom rekk moo mën a jubale. ne ñu dellu dëkk loxo yàlla. ne ginnaaw loolu ñu ngi roof foofu nuyoo di wax assalaamu aleykum wa rahmatullah ne ñu ngi nuy mbokk yi fi teew yépp ne di ci jiital nag ci nuyoo bi ne ñu ngi ciy jiital Seydil Hadji Malick Sy di doom si xalifa bi Cheikh Seydi Mouhamadou Mansour yal yàlla dolli leer te tas ñu ci barkeem eh, ne ginnaaw loolu ñu ngi koy dalal muy dal ak jàmm ci lii ñu sumb yal na ko yàlla mottaleeg jàmm yal na ko yàlla defal tawféex ba lii mu jublu mu mën koo mottali ak jàmm ne suñu ko nuyoo ba noppi dalal ko ñu ngi dellu di nuy mbooloo mi fi teew yépp ne naam sax xamuñu ñépp sax waaye ku mel ni Haj Malick Cissé jingi mi toog nga xam ne toogaayu xalifa bi la fi toog di Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Al Maktoum ne nga xam ne mooy xalifa Seydil Hajji Malick ci jamono ji ñu nekk ne moom itam ñu ngi koy nuyu. mu jotalal ñu suñu nuyoo. bu demee ci sëriñ ba. ne ñu ngi delluwaat di sant yàlla bu baax. bi nga xam ne may nañu ci kattanam ak mbaaxam ñu toogaat fi ren. ci barab bii. ne te sabab bi. mooy màggal juddub yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. muy loo xam ne. nee muy loo xam ne. yàgg na lool. yàgg na lool sax. ñu di ko def. ñu di ko def. Eh, ñoo xam ne. nee am na ñoo xam ne. ñu ngi fii doon ñu ngi fii doon ay mag léegi. ka nga xam ne moo ko daan def. ka nga xam ne moo ko daan def. di suñu waajur. di suñu waajur. commencé di ko def. ba mu ko tàmbalee di ko def. am na ñoo xam ne ay mag lañu. am na ñoo xam ne ay mag lañu. te ñu ngi fii. te sa jamono booba. fekkewuñu ko. ne mu ni ci wax lépp sax naam. ne loolu sax jaru ko. ndax waxtu bi mayewu ko. ne bu ñu mënee wax ne daanaka 1933. wala ba 1937. ba 1937. diggante boobu la gàmm gi commencé. ne diggante boobu la gàmmu gi tàmbali. ne kon nag. lii ñuy def. lu dëggu la. loo xam ne barke mën na cee génn. képp koo xam ne dugal nga ci ca alal. ñu ngi dellu di la sant di la ñaanal ci barke guddi gi yàlla fajal la say ajo yépp ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa ne li ñu ciy wax sax du bari ne ñaareel ba li ñu war a wax dañuy dellu di santaat njaboot gi yépp góor ak jigéen ñu ngi dellu di leen sant delluwaat di leen ñaanal yàlla yàlla may leen li nga xam ne moo leen soxal te ñor leen yàlla may leen ko ci barke guddi gi ne ndegam nekkul safaan rek yal na ko yàlla def ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallama allahuma salli ala seydina muhammadin wa sallim mu ne ñu jàng faatiha jàngal lixlaas falaxi ak naasi ñaanal ko sëriñ bi ci barkeem yàlla sa mbaxtal ko ci njaboot gi yépp bismillah ما خلقت من شيء كل أعوذ برب الناس مالك الناس اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح حق قدر سبحان ربك رب العزة عما يصفون الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله bokk yépp yaakaar naa ni kàddu gi du gudd dëgg la Serigne Cheikh moo fi yebal comme ni ma fi yebale woon daaw ni ma bu Serigne Abdou ñëwee demal nga wéttalil ma ko e, bu amee ngànt ba ñëwul yeble kum yebal toppal ci gannaawam e, surtout nag bi nga xamee ni boppam la yebal muy Seydi Hadji Malick mii nu bokk turandoo muy ku ma nawet ci wàllu àlluwa ak ci wàllu yar e comme daaw niñ ko defe woon noonu lañ ko defe ren semaine bële la wax doomam Seydi Hadji Malick maam Maodo ni na ma woo wax ma ni na bàyyi xel ci gàmmu gi ndax jub siwaat na loola nag diggam ak alxaaji ahmad lamin jéen radiallahu anhu moo ko waral ndax nee na alxaaji ahmad lamin jéen day bàyyi di wëllëre di lépp ci moom ndax nee na bi muy ñëw ndakaaru sëñ Babacar daf ni ko boo demee loo fay dox ci diine ànd kook alaaji Amad Lamin Jéen tàggu ko ca itam loo fay dox ci wàllu bokk gi ak aada ji ak biir lébu yi ànd ca ak alyàgg jaañ loo fay dox ci wàllu administration bi ak nguur gi ànd kook alaaji amaat mbeng e, ba tax na ñetti ñooñu ñoom la fi njëkk a collaboreel di doxal li muy doxalal sëñ Babacar maa ngi fàttaliku gàmm gi fi sëñ Cheikh mujj ñëw booba sëñ Babacar a ngi ci feebar muy bisu samedi ni tey dimanche altine sëñ Babacar jóge fi kon ba mu fay jóge bàyyi na ko ci jal-jal bàyyi na ko ci waajtaay ba docteur bi sax wax ko ni ko ah sag dem de wóorul ndax nangam nangam mu ne ko ah ginnaaw yàllaa tax te dama ko daan def te booba wér na yàlla tax feebaram ñëw tax ma te yàlla taxoon ma bañ koo def loolu kenn mënu koo firi keroog loolu la wax fii ci gàmmu gi ba mu fi jógee samedi bët set di dimanche altine góor gi jóge fi kon loolu wone na ne am na fu mu teg kiy doxal mbir mii e, bi nu fi ñëwee itam nu fekk fi xalifaam bi di al imaam Jibril Diène mu dalal nu xoole nu bëti sëriñ bi te matunu ko woykat ah, waykat ba nag daf ni ma kuntu ahlan fa hum ra'aw nii li daaka ahlan fa sirtu ahla hum saadati jaahuhum azimun fa abduhum laa yazaalu mawla xëy naa lool rekk a tax nuy nuy sunu mbokk di alxaaji Mouhamad Lamine Guèye ak sunu rak alaaji Njaga Siise ak sunuy doom Cheikh Tidiane bu alaaji mbay dondo ak sunu jarbaat Mor Ñang jarbaatu alaaji mbay dond ak ñi ñu àndal ñépp sëñ Maodo Seydil Xaaji Malick noo ngi lay nuyu di la beral loxo e, ndax wax dëgg yàlla kenn mën la jaare ci yow yàpp Seydil Xaaji Malick ndax sëñ Cheikh dafay wax ni siiru sax bu dee jàpp ganaar di ko fekk ci ngunu fa gën a nooy lay bët duggee fa waaye fa dëgër du fa jaar waaye yow itam bu Seydi Hadji Malick doon ganaar ngay ngunu kenn du jaare ci sa fa gën a ci ci yow di dugg ndax doo fa gën a nooy buñ la laajee masala boo ko waxee kenn du xeeb sa maam kenn du xeeb sa waajur buñ la laajee jikko ju rafet boo jëfandikoo kenn du xeeb sa maam kenn du xeeb sa waajur te loolu rek moo am solo sëñ Cheikh daf na mas a wax ni kenn ku ne na jàppe boppam ni xalifa Seydi Hadji Malick la ak sant wu mën a sant ni mu koy nekkee moo di Seydi Hadji Malick daf daan jàngale daf daan yare daf daan defaru bokk daf daan dimbalee mu nee na foo ne te loo xam a kas néew nga jàngale ko loo am kas néew nga bokkook boroom soxla yi loo am ci doolee kas néew nga yërëme ko ñi nga tane yaa fay Seydi Hadji ba keneen di ñëw ndax nee na sant si Seydi Hadj Malick daf ni kër gi santul si yàlla la sant sëñ Cheikh nag mu ni kon nag fexeel ba doon alaaji Malick rek ndax moom nee na mun maa fexe ba ñëpp sant si waaye mën na maa fexe ba ñëpp di alaaji Malick mu ni nag man Cheikh maa ngi laaj sant si te doonoo alaaji Malick lu mu lay jariñ maa ngi laaj doon alaaji Malick te santoo si lu mu lay wàññi kon nag importance bépp mooy nga nekk alaaji Malick rek jàppale ko ci daaraam ji jàppale ko ci yàlla am ji jàppale ko ci ni muy dimbalee doomu soxna yi ak ñépp yow nag wax dëgg yàlla fa tabaarakallaahu dañ lay ñaanal rek di la kopp koppal e nuy nuy nag bokk yin fi fekk yépp fekk naa fi sama doomi ndey alaaji mboor jaañ bañ koy jox sëriñ Cheikh juróom benn at la am boole ko bulletin de naissance am jox ko ko noo ànd fii ci délégation bi la bokk sëñ Jibi mii fu waay yónni sëriñ fu sëñ Cheikh yónni nit mu fekk ko fa moom moom mën naa jiite délégation ba ndax wàllam ci way wàll waay jur sëñ Abdullahi ngi nii noo ko yar ca Tiwaawan mu jàng ci sunu ustaas ustaas Ousseynou Diène ñu bokk bàyyi ñoom daal wax dëgg yàlla sëriñ Cheikh yónnee na fi waaye boppam la fi fekk nuyu nuyu nag jigéen ñi di leen xamal ni li tax ngeen gañeenu nun góor ñi sëñ Babacar nu ko def ndax moo ni woon jigéen ñi laa faral ndax duñ ma laaj muqaddam duñ ma laaj ilimaan te lu ma lu ma santaane ñoo ca man a ah, kon nag ba mu fareeg yéen ba léegi yéen a nu tane ndax bu woykat yi moom xamu kuy miim loolu waaye ñoom duñ ci bokk ndax bu ñuy woy ñiy gën a dem ci taabal ji mooy jigéen ñi ah te sëñ Mansour radiyallahu anhu daf daan wax ni ah ñooy paas ñooy joxe paas yi ñooy paase ñooy baase kon nag wax dëgg yàlla dañ leen di ñaanal rek nuy bég lool nag te xam ni guddi gi moom gàtt na sax waaye gudd na ndax kii bëgg a jël incha bu jëlee fa tabaarakallahu ah di ngeen yéeg ni li gàttoon wax na ci loo xam ne lii dina matala lépp ah maam Balla noo ngi lay nuyu di la xoole sa way jur wa alaaji Tijaan Ñang sëñ Abdul Aziz ñëwul waaye yebal na boppam muy maam Maodo mii waaye nag boole kook ah, Babacar Kebe ak Adama Fall nga xam foo leen fekk sëñ Abdou leen yónni ñu ngi nii ci gannaawam moom daal kenn mënu la wax lépp waaye li nu bëggoon a wax a ah, ngeen baal nu ndax kilifa kenn du ko jëkk a wax di xaabaabal sëñ Mansour bu sëñ Cheikh dafay wax ni bu ñu nee waxtaan a ngi nii moo xam gàmm la walla conférence la ki koy waxtaanee ngi nii tem sàngam lay waxtaane boo ca duggee tooñ nga ñëpp asalaamualeykum wa rahmatullah rahim wasalaatu wasalaamu ala ashraf almursalin sayidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam mbokk yi fi teew góor ak jigéen mag ak ndaw ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaara di leen dalal ci jàmm ci dikra mawlidi nabi sallallahu alayhi wa sallam bi nga xam ne suñu wajur alxaaj Ahmad Lamine Diène moo amoon ndigal ba di ko def imaam ji wax na ko ñu ni tamit ci ndigal rek lañuy woy daaw sëñ Abdul Aziz Al Amin moo fi yebal doomam Xaaju Malik macha allah ñëpp nangu na mu waxtaane kon nag ren dañuy gàttal rekk jox la ndax namm nañu sa kàddu xam-xam moo ñu ñor moom lañ ñu yare waaye nag du tee bu ñu demee ba tànt ant bu demee nii am na ñu ci jàpp ñoo ñu ci jàpp nag fow nag ñu tudd seen tur ndax boroom xam-xam ba ak boroom alal ja ak ki jihaat te doon jëkkante buntu àjjana waaye kiy jihaat foog ne mooma bëgg néegu àjjana ne ko nag kan moo la xamal jihaat mu ne ko boroom xam-xam mu ne ko kon jàllal fëre boroom alal ja ñëw itam moom itam di jëkkante mu ne ko kan moo la xamal dépenser mu ne ko boroom xam-xam waaye ba boroom xam-xam ba ñëwee it daf ko wax ne ko nag duma mën a dugg te ki ma daan jox may lekk di naan di boroom alal ja duggul ba pare kon nag alal def ko ci wàllu yàlla moo gën di ko def ci beneen anam bi ñépp di gis ci télévision ñu koy def rafetul santul yàlla kon nag ñi ñu nga xam ne ñoo dugal seen alal ci biir foofu ñu tudd leen monsieur Macoumba Seck ministère de l'intérieur bâche yi yëpp moo ñu ko jox monsieur Cheikh Tidiane Ndoye gouverneur de la région de Dakar moom itamit indi na participation monsieur Alioune Badara Diop. préfet de Dakar ci turandoo Serigne Badara Seck bi nekkoon ci daara ji way juróom di abdu Seck Diop indi na participation madame Adja bu wadd maire de la commune d'arrondissement Gueule Tapée Fass Colobane ak les conseils foofu dañu wax na sax naa fi taxaw ndax balaa ñuy gàmm moom ci boppam xelam nekk na ci gàmmu gi ba bu ñuy reeñoo sax day ñoom moom seeni wàdd en tant que maire ñëw xalaatandoo ak ñun laaj ñu lan moo lan moo des te lu ci matadi rek mu mottali ko mu ngi nii toq kon fa tabaarakallaahu génnee ci poosam joxe lu takku yal na ko yàlla fay yiw madame le commissaire de la police du quatrième arrondissement bii moom tamit dañ koy gërëm ndax sécurité bi imam ratib de la grande mosquée de Dakar Alioune Moussa Samb moom tamit fa tabarakallahu def na li ko war El Abdoulaye Makhtar Diop grand sëriñ de Dakar fii la teewal waaye nag fa tabaarakallaahu yitte yee bari moo tax mu jóg dem ndax yitte yee bari ku ne xam na temps ni mu mel ci jamono waaw sëriñ bi yéen war nañ waxtaan ci temps ndax nit ñi xamuñu luy temps foofu nag ngeen di génnee ay thèmes di ci wax ci temps parce dafa mel ni jamono bi xamaguñu temps maa ngi ci nag di nafar El Hadji Abdoulaye euh, monsieur Moussa Touré moom it tamit tous les imams imam yëpp fa tabarakallahu ñu ngi leen di gërëm chef de quartier yi notable yi mu xaddam yi ak président daayira yi yëpp ñu ngi leen di gërëm El Hadj dem moo fi taxawal xalifa Sokone ñoom itamit ñu ngi koy gërëm monsieur Seydou Seydou Guèye secrétaire defe naa présidence moom itamit ñu ngi koy gërëm dawaayir yëpp teew nañ fi dawaayir yëpp teew nañ fi rawatina nag daayiratul kiram buñ ko tuddee rek dafa mel ni tudd nañu daayira yëpp waaw fa tabarakallahu El Hadji Bàcc Diop président des transport de Dakar moom it tamit ñu ngi koy gërëm famille El Hadji di doom ci El Hadji Youssou bii moomoon kër gi moom génn na àdduna waaye soxnaam lépp lu war daf koy def ñu bëgg nga ñaanal ko monsieur Lamine Diack moom i tamit dañu bëgg nga ñaanal ko famille Mame Mbaye Sylla at mu jot ñu indi seen participation petit-fils de El Hadj Amad Lamine Diène ñoom i tamit ñuy sëtu El Hadj Amad Lamine Diène dugal nañ ci seen loxo franco arabe El Hadj Amad Lamine bi El Hadj Malick mii doomu El Hadj Ngalla Diène moom mi ko yore fa tabaarakallaahu lu ñuy def rek mu génne participation monsieur Abdou Aziz Guèye moom i tamit monsieur Moustapha Diop 37 5 monsieur Cheikh Seck mi ngi nii ak frère di colonel Habib Seck immigré itali membre di daïra ñoom ña nga ñoom i tamit seen participation fa tabarakallahu Pape Diop M3 ak Lat Cubb madame ay Aysatu Ñang monsieur Doudou Guèye daam chef de penc ok sànq la fi ñëw joxe participation monsieur Habib Diène monsieur Pape Seck monsieur Mansour Mbeng président ASC Penc moom itamit indi na participation famille feu Ñaasa Mbeng di sama jigéen yàlla def daaw mu génn àdduna fa tabarakallahu ñoom ñu jël engagement ne li fi daan li mu fi daan def dañuy def lu ko raw te def nañu li lu ko raw monsieur Abdou Diakhaté monsieur Abdoulaye Fall dañ koy wax Dinki président Mamadou Ndiaye ah professeur Mamadou Ndiaye El Hadji Mamadou Ndiaye di doomu El Hadji euh, Alsan Ndiaye nekkoon ci daara ji jàngi dem ba ñëw fa tabaarakallaahu di boroom xam-xam yal na ko yàlla may wér moom Mamadou Dia Diène ak aadama Diène di samay frère ña ngi extérieur waaye joxe nañ seen participation monsieur Ousmane Gueye kër gi bâche maitre Baba Diop avocat de la yaakaar naa ginnaaw remerciement yi yooyu la woon waaye bu dee dawaa iri rek bu ñu tuddee dairatul kiram mujjay sëriñ bi fa tabaarakallaahu et alhamdulillahi rabbil alamin bi ñu la sëriñ Abdul Aziz Al Amin yónnee ngay doomam di jaar fi nga war a jaar macha allah kon fa tabarakallahu nag ñu ñaanal xale yi nga xam ne ñoom ñooy organise mbir bi rawatina jigéen ñii ak suñu yaay yii nga xam ne ñooy yaayu xale yi lépp lu ñuy def rek def nañ duubalam kon fa tabaarakallaahu ñi ci amul sëriñ yal na leen yàlla may sëriñ ñi nga xam ne ñooy gunge xale yi itam yal na ci yàlla bàyyi ba ci kanam kanam yàlla may leen kàttan may leen wér wassalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu e ku def fi yàlla na nga gis a gént bi soppe sëñ Babacar na toofu xawlaka ma anan kay nu وفيدها سكر أنت الملاذ إذا مشيت من جلل أنت المؤاذ إذا تشرى يا وزر يا منتهى عمل بالله سن الله شيخ أنت المعين وأنت وأنت المستعان وينعون زمرا أعوذ بيا أعوذ يا مولاي يا يا وزر يا منتهى أبد بالله سن الله خيشي شيخ فعلم تدع أنوز مترعى بروح ko ci kaw falam tunde sir amira Cheikhu Tijaan falam tunde sir amira loxo ci kaw falam tunde remede tikum tumi ila samarati dinita ya ya jóg leen ñu màggal Mokhtar jóg leen taxa màggal Mokhtar mais ko retour bi mooy yeex ati jóg leen ñu màggal Mokhtar